lekk naan andi wuñu fi sol mbubb mu rafet andi wuñu fi dugg oto yu rafet andi wuñu fi étage yu kawe andi wuñu fi li ñu fi andi mooy topp ndigal bàyyi tere bëgg lu baax ba bañ lu bon di def lu baax di daw lu bon loolu mooy nu jig leneen jigunu nan nan am gàcce fii ci suñ biir néeg bala ñu am gàcce ci kanam Sëñ Tuubaa ni ne mel ci suñu biir néeg nan ko mel ci mbedd mi ku ci génn kaalaw mbaa nga sol mbaxana te boo duggee sa néeg wala si fen nekk feneen mel lu la neex dëkk ci wax lu la neex dëkk noo mën a amee amee ko noo mën a waxe waxe ko loolu Sëriñ Tuubaa bëgg ko ci nun ku ca nekk doo ci mujj ci sama bopp laa ko tàmbulee amul ku la mag amul ku la féete gone ku ci mel lu Sëriñ Tuubaa bëggut tooñ nga Sëriñ tubaa kon nan fet feddiliwaat suñuy laxasaay bu baax te takkaat suñuy dàll te xam ne Serigne Touba mii ñuy tudd guddeeg bëccëg suba ngoon wallaahi noonu la fi bàyyi ñoo koy jëmmal zahiran wa batinan kon nañ leen góorgóorlu ñun ñëpp suñ ko defee war maa warmaal nañ Serigne Touba siggal nañ ko ci fépp suñ ko defu tooñ nañ ko te it war nañ ko te moom de wallaahi waruñu bu ñu moy bu ñu nafiq bu ñu wurut bu ñu bëgg daraja bu ñu sàkku ab cër bu dutu taalibe bu ñu ngërëmul kenn ku dul Seexul Xadim bu ñu jaamu ku sax ci benn sunna bu du sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na la nuru dëgg te du dëgg bu leen def fu leer fu ngeen gisee luy leer ci kaw asamaan si rek ngeen jàpp na weer la bu leen def fu ndox tawee te sedd ngeen jàpp na mel su ko naan yenn saa ngi gis ndawal dafa ne wata boog la fekk midd la Seexul Xadim nee na ku ko yaakaar yaakaar ci moom wërsëgale la àjjana ëllëg bu ñu jéggi nekk malaaka teet nangoo jaamu yàlla nee war sa bakkan amuñ lu dul sëriñ bi bu ko defee xam leen war xam dem leen woote dëgg ak ñii fan xam nga ne sëñ bi di dund ba dee mu wóor na ci waru nga nekkoon te te laata nga koy xam sa ruu taqali ko nag sa yàpp yaram loolu xam nga ne cat la gàcce la musiba la dara jaru nelaw guddi ba jeex nga xëy yor kurus di woote tasawuf kàcc nga dañ laa war a rey di yëg ndey ju baax mbaa baay bu baax war na jëf dolli ca damoo léegi aw des lu néew day na ca ku lekk sa mbaax ak bàyyi mbaa sa yaay war ngaa fexe baax bu sa doom di ñuy see jotaay ñam mu neex mënta wéy rek bu fanaanee fanaanal forox ku bëgg ngërëmul yàlla da koy wut ca ko ko jotee bu góor masa tëdd nelaw góor jóg sol tubay ba garaw ah am nañu daan nelaw am ñu daan nangam waaye am na ñoo xam ne dañ daan durus ba fajar yàpp yaram yi sax yi dana ko lekk yax yi suuf alal yi doomu aadama yi danañ ko séddoo ko kulumaati yowmal xiyaamatil fardan kenn ku ci nekk da nga wute sa borom ba jàpp ne yow rek la bindoon kon fu ngeen nekk doon leen takk ndéeru Sëriñ Bamba bis bii nanu ko waajal ci njub ak dëgg te tege ci siraatal mustaqima moo ni jariñ tey moo ñuy jariñ ëllëg ku ñu ko bëgg a yombalal daf ni nax ku ñu ko bëgg a yomb adduna yàlla rek la seen dee li ci des lépp mu nekk ci ba fàtte bis penc ba muy adduna lépp lanu ci sunu wàll kenn ku ne ci yëpp kenn moo la ko ameel te foo nekk mu fekk la fa moom kooku jëru doon nu xel bu baax dellul suñu xol adduna du dara jaamu yàlla rekk lañu seen li ci def lépp mu nekk ci ba fàtte bis pénc ba muy adduna lépp